jaa ngeen jëf sama gars maa ngi leen di siyaar da def ak coono xam ngeen man damaa xaw a bëri kersa may ñëw di waxtaan ak yéen damay sax ruus mais yenn saa yi il foog ñu toog nag ñun suñu biir ñu ñu ñu mën a waxtaan xoolante ci ay bët waxante dëgg même bu dee yenn saa damay am kersa sax sama digganteeg yéen. Euh, waaw naka ngeen def naka waa kër ga ana maire yi ak paa yi naka booy yi. ana xale yu góor yi ak xale yu jigéen ñi voisins yi voisines yi cousins yi ak cousines yi ami mooy yi amul e ak ami yi am e ah ana e, xale yi e, kii e, naka xar yeeg ak nag yeeg ak bëy yeeg yooyu ñu ngi leen di ziar bu baax na ngeen def ak coono yi yéen a ngi am jàmm ñi am oto ana oto yi mbaa yéen a ngi toppatoo entretien yi bu baax ñi amul oto Euh, tey jël taxi naka taxi yi wala sax yenn saa am nañu ci bari ñoo xam ne dañoo taamu jël Dakar dem dikk ñooñu tamit maa ngi leen bu baax surtout receveurs yi ne yenn saa yi euh, émission fa lañ koy foofu lañ koy nekk di ko cons naan la abaa ah maa ngi lay cons ci euh, fi nga xam mooy ci Dakar dem dikk beeg yooyu maa ngi leen di kontaanee bu baax di bëggee ñëpp nag hmm, di bëggee ñëpp rek ñoo xam ne ñu ñu suivre gars yi bëggoon ñu waxtaanee rek ci affaire influenceurs yi maam ñi nga xam ne dañuy toog ci plateau yi am xam-xam loolu di wax ci walu walu plateforme yi ci réseaux sociaux les ñu nangul leen seen xam-xam nak nangul nañ leen ko lool xam nañ ñu am xam-xam ngeen mais nous euh, bëggoon rek ñu indi suñu xalaat ñun tamit waxtaan ci influenceur gis nga boy yi am ay 50000 abonnés yeen lay waxal wala 100000 abonnés yeen nous wax nag yexé ko sama bop boy yi am 50000 abonnés wala 100000 mille bu ngeen bëggee considérer seen bopp influenceur qui euh, considère leen seen bopp influenceur kenn moomul affaire influence influence quel kenn jàng nañu ko ci benn école école yi ay communauté ménagère ñoo fay génneeg yooyu mais influenceur youtubeur tiktokeur snapper ak instagrammeur rek ay facebookeur génnewuñu école neex la ngooy neex wala nga mën a sañse nekk influenceur ci sañse wala nga mën a lépp nekk influenceur ci lépp wala nga xam histoire nekk influenceur ci histoire wala nga xam nangam ak sàngam di ci influence nit ñi pour ñu bëgg ko wala ñu xam ko wala ñu dem di ko wuti loolu mooy influenceur influenceur moy ci li nga nek mën ci pousse ben nit wala nit bam dem wuti ndax ci influenceur exemple man Abba laa no stress la sante. je suis animateur et humoriste mais je peux vous influencer ci techno bi Camon 20 la tudd 20 bi mu ngi koy mais influencer ki may nan ko 20 bi Boko beugé demal ci Jiri CSB wala demal am Amzakan ci kaolak Camon 20 bi bo ci am batterie 5000 nga dem wuti téléphone bi maanaam la day photo ci kanam di photo ci ginnaaw maam wax la ci téléphone bi loo xam ne téléphone bi daf lay neex nga dem wuti ko batterie téléphone bi du wàcc téléphone bi lii téléphone bi lee ba nga dem wuti ko ba pare ñu may wax naan aba ah, téléphone bi kamoon 18 li mu jaayoon kamoon 17 jaay ko kamoon 19 li mu jaay kamoon 18 jaay ko kamoon 20 bi li mu jaay kamoon mais influence baa ngi ci chaque année ñu lay renouveler sa contrat ngay signé mais boo influenceur kan moo influenceur alors ñu bëgg a la yow boo bëggee cere fonde laax caakiri ndékki xale yi ba ci guddi ba ci sax ngay defar ñarum soow mbaa ngay wayal meew mi moo ci gën laaliyaa la tudd moo gën moo mën moo ëpp doole laaliyaa awaa ah, nga dem jëndi laaliyaa ne meew mi abaa moo tax ma jënd ko wala meew mi ci abaa laa ko gisee waaye yow léegi yow da ngay seetaan football bëgg football loolu di ko suivre fu ne di topp football man la la famille bet boobu nga doon toppi am nañ sunu bet ñun boo xam ne bet bi ñoo ko moom ñun sunu bet maanaam football ak pari foot ñoo ànd da ngay jouer da ngaa bëgg jouer boo bëggee jouer da ngaa bëgg jouer del jouer suñu bet ba pare jouer ci code aba aba deux cent vingt et un da am ay promo ay deux mille yoo xam da nga koy mën di jouer waat waaye loolu booy bi dem di jouer wi ay suñu bet wala mais loolu tamit yéen yéen man man parfois duma comprendre

mais bu leen découragé wu yéen ñi nga xam ni yéen a bëgg nekk tiktoker snapper instagrammeur youtubeur facebooker wala ngeen nekk influenceur kenn moom ko nekk leen ko na rafet rek na propre na set suba nga xalaat ni say doom wala di nga am soxna ami doom li nga màgg maanaam ci li nga nekk bu la ci kenn woo di la yedd yaa fi defoon li ngay weddi ambiance foo ree humour ki nga xam ni heure bu yeewoo il faut mu dugg sa page reetaan wala il faut mu dugg sa page xool kaay yu sew yi ñuy waxtaanee du question dara mais dañu bëgg nit ñi di reetaan léegi nag boo koy def nit ñi xam ne bu ñu jàllale seen produit yi ci yow euh, affaire yi day dox day jàll te ñu ngi koy jàllale muy dox contrat yi di jeex ñu lay gën a signé waatal mais kooku bu nekkul influenceur kan mooy influenceur influenceur mooy ki nga xam ne dafay def nit ñi di def ki nga xam ne day wane nit ñi di wuti loolu ki nga xam lu mu sol nit ñi bëgg ko ki nga xamni fu mu nekk nit ñi di ko parce que bëgg nañ mu won leen fi mu nekk ki nga xamni su voyager ñu ne voyager na fan la voyager lan lay def ku ko yob ambassade France bu la jëlé yóbbu la ci ñi préparé ay JO 2024 wala ay JO de la jeunesse 2026 au Sénégal JO à Paris ambassade France jël la yóbbu la boo nekkul influenceur yow lan nga je suis mani je me présente je me représente je suis abba Nostres. c'est mon nom je suis animateur humoriste influenceur footballeur basketteur handballeur youtubeur tiktoker facebooker <laughs> je suis tout alors c'est quoi le problème lan mon problème bi yow nan nga influenceur lii bu dul yéen ñan ñooy influenceur Cristiano Ronaldo Messi Khabilam. ok parce que avons des millions de nit ñi ngi leen Nous, ok ñun finissons c'est une suñu popularité ak une communauté fi mu toll ak ñi nga une ne suñu manam ni population bi toll ñun non la tollu ci ay followers tay buñu nous ay français dañuy am ni population dang koy jël nga nga nga multiplier ko alors que ñun nous dundé ni ñun nous lañu wara dundé gaay gars nga dégg kenn ku ah, ñi dinañ leen yok loxo bañu raw ñi dinañ leen nous raw fiñu nekk ñu ni je touche du bois tey ni ma mel Sénégal parce que Sénégal la nek on est 17 millions xom ma nangam 8 millions de la suivre wala 7 millions de la suivre macha yalla yok bu ma nekkoon France 50 millions lañ boko ko nga def le calcul la cal nga calculer fi France ñaata nit damay suivre nga calculer euh, suñu co euh, euh, suñu population ni ñu ak ñu ma fay suivre nga calculer ko fi France 50 millions demal Chine nga calculer ko ci 2 milliards de chinois ma nekone chinois man bu ma len toppee. fi may bàyyi leen nit ñi ñu dund seen dundu ci mbaa jàmm la a leen di kontaane bu baax déggee